jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara mbokk yi démb bi ñuy yëkkati jataay bi ñoo ngi tolloon ci sallallahu alayhi wa sallam teggin am suñ digganteeg moom mu bokkoon ca teggin ya nu jéem koo niru buñ bëggee sunu ëllëg jag yal sunu ëllëg jag ma ne kon bokk na ci ay teggin teggin yi ngay am sa digganteeg sa imaam yi ma doon wax yépp day valable sa digganteeg moom muy sa sëriñ ki lay sa njariñ dox sa digganteeg salawaatullahi salaamu alayhi di la jàngal na meloon di ko feeñal ci jëfam nga di ko ci ne naka noonu geneen kilifa gum mën a doon sharia day wax kilifa dañ koy topp loolu la xel nangu loolu la logique nangu al aqlu salim wa nutqu salim loolu lañu nangu mooy kilifa dañ koy topp ndax bu nit yilifee te dee su ko topp walla ñu xeeb ko ba duñ ko topp pinc ma ci pëcc xoola jëm ak yàqu euh, mane kon sallallahu alayhi wa sallam yàlla farataal na sopp ko moom ci boppam mu moom yonent bi moom yonent bi wax na loolu moom ci boppam dafa wax ne wallazi nafsi bi yadihi laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain allahu akbar muttafaqun alayhi al buxaari ci al iman jukkib juróom-ñett muslim ci al iman juróom-benn fukk ak juróom-ñeent wala hadis numéro juróom-benn fukk ak juróom-ñeent oustaz Cheikh Tandia yonent bi dafa giñ mu ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne moo yor sama ruux maa ngi giñ ci yàlla mi yor sama ñu ne ko waaw mu ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul dama koo gënal doomam kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul dama koo gënal doomam doom joo mën a am nag doom ju jigéen doom ju góor taaw caat waaw moo tax moo xam mi ngi liggéey moo xam liggéeyut moo xam milliardaire la sa yoon nekku ci doom ji ko mën a doon bu la ko yonent bi gënalut sënga matagut nit ku nekk yonent da koy gënal doomam gënal ko ay doomam yépp wax la ko tey ni la yonent bi gënal say doom nag mooy li yonent bi def bu ko sa doom di def nga encouragé ko ca li yonent biy def bu ko sa doom bañee def nga fexe mu def ko waaw waaye am sa doom ñu tiim taabal ji di lekk ñëpp jël càmmooñ nga ne ko fokk nga jël càmmooñ déedéet mu jël ndeyjoor la yonent bi ndeyjoor la daan jël nga ne ko bu nu rey waaw bu nu rey ak say addis loolu kenn du ko wax de kenn du ko wax de xale yi léeg-léeg nga gis ko ku nu mu na sama douanier ba defoon gëj naa ko gis jóob waaw ne dama bëgg am sikkim <laughs> ndax dégg naa yunti daf ko daan yar mu ne ko waaw daf ko daan bàyyi de wutal ko peñe di ko peñe waaye léeg-léeg nga gis ko ko def rek tabarkal entreprise wala société bu ne la wat ko mbaa nga dem ñibbi wat ko mbaa nga dem ñibbi cëy hmm? yonent bi da lay gënal sa doom wa waalidihi yonent bi daf lay gënal sa baay yonent bi def lay gënal sa baay waaw ca la yem wan naasi ajmaina yonent bi daf lay gënal nit ñëpp moo lay gënal sa sëriñ gënal la sa baay gënal la sa yaay gënal la sa doom hmm? ñi ñëpp gënal sa sa sa waaw gënal sa sa député gënal la sa ministre gënal la sa président yonent bi na la gënal ñëpp wa naasi ajmaina waaw ñépp na la yonent bi gënal ñëpp sallallahu alayhi wa sallam hmm? waaw waaw nee na ku tollul foofu sa gëm matagul wax na dëgg ku tollul foofu sa imaan matagul wal wallazi nafsu bi nafsi bi yadihi laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain waaw waaw moo tax keroog day dox ci Madina ba taseeg Omar ibn Khattab aku ñaqam ndax fitna la daan doxe foo jóge barab sàngam loo defoon nangam waxtaan way dem di dem ba agsi ci maa yow ku la ci gënal <laughs> Omar ne ko sama bopp ma la gënal ndax sama boppam ma la gënal du bañ naa la waaw yonent bi xool ko ne ko maa ngi lay génneel ci yàlla sa gëm matagul daal koy jox loxo ñu téyante téyante téyante mu mel ni ku koy sol essence <laughs> ba Umar ibn Xattaab yëg ni fi mu taxaw nii yonent bi gënal boppam mu ne ko maa ngi lay géñal ci yàlla fi ma taxaw nii nii nii jógaguma fi yaa ma gënal sama bopp mu ne ko wal aana yaa Umar acca demal mu ne ko yaa ngi door a sa ngëm a ngi door a mat sa ngëm mi ngi door a mat mooy lan yonent bi dem ba gënal la sa bopp ña daan xare ji bu leen yonent bi gënal seen bopp duñ jaay seen bakkan yi naa fexe ba kay loolu la waxoon yéen lu ngeen di xare ji dana leen rey ba ngeen jeex rek waaw yonent bi da lay gënal ñëpp moo tax àdduna ñi bëgg a jàmm dañoo war di bàyyi di ko ak di ko attaqué ndax koo xam ne moo la gënal sa doom gënal la sa pàppa gënal la sa yaay gënal la sa sëriñ gënal la sa bopp kooku ku mel noonu ci aqida nañuy bàyyi xel loolu dafa bokk ci penc mi liy maye jàmm ñu sàmmal nit ki aqidaam bokk na ci sàmmal ko aqidaam personnalité bii ñu wax Muhammad ibnu Abdullah ni mel ci nit ñi ku moom meloo ko ci ñoom salla alayka allahu ya alamal huda koo xam ne bu ñu la woon kaay dee ndax moom nga dee léegi daal dem toog ca wetam fi ne fam nekk dàq fi mu nekkut kon àllaaxiraa dàq fi fam nekk moo dàq fi nii nag moo tax àdduna si ñi ci xamul loolu ñi ci xamul loolu bu njëkk te kàddu gu jëm ci moom rek tabarkalla salla alayka allahu ya alamal huda nee mi ngi gën ci yàlla mi yor ruuxam kenn ci ñun ngëmam du mat lu dul yonent bi daf laa gënal sa doom gënal la sa baay gënal la nit ñëpp waaw tabarkalla ba demee ca bindkat ba euh, Aboubacar Jabir al Jazairi ca mbindam ma mu ne wa man wajabat mahabbatuhu wajabal aadaabu isaa wa lazima taaddubu maa nun la ko bind ci téere ba tabarkàlla nee na koo xam ne kii sopp la daa war farata la ñu naa ah. am ay teggin sa digganteeg moom day war ñu ne waaw mu Euh, am ay teggin warloo ko daa war ñu ne waaw loolu moo ko bind ca téeram ba minhajul muslim ca fanweer ak juróom waaw suma jumut wala boog juróom-ñaar fukk ak juróom waaw kay naka noonu juróomeel ba maxtasahu bihi rabbu li ko yàlla jagleel min jamaalil xalq waaw wa jamaalil xuluq yàlla daf ko bind bind bu rafet bind bu rafet la ko yàlla bind moo tax ña dëkkoon ak moom te di ko bañ doo xam fu ñu ko doon teg waaw bind bu rafet la ko yàlla bind mu nekk un beau prophète alayhi salaatu wassalaam benn cërëm bu manqué amut benn cërëm bu rafetul amut kawar ga rafetoon na bakkan ba rafetoon na xar kanam ba nuun bët yëg ko masa xol nga sëgg mu amoon sikkim bu sëq alayhi salaatu wassalaam sikkim bu sëq la amoon tabarkalla ni sikkimum Ousmane bun afaan ba ndax saaba yi ñoom tam dañ ko doon roy ci sëqal seen sikkim yi Ousmane bun Affan fees leen dellu ndeysaan xeettëttë ak gaaya ak rafetoon boo demee ci suñ mag yi li ñuy bind ci moom maam Moussa Ka daf ne ku lay jaay taar <laughs> na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin cettt ki lay ku lay jaay taar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin mu ngoog yuusufa taaram ba nee nañu asakay taaru yonent bi la te yuusufa ku ne xam ne ne tabarkalla kon yàlla daf koo jagleel min jamaalil xolq bind bu rafet la ko bindoon wal xuluq jikko ju rafet la ko am la ko la ko joxoon jikko ju rafet la ko joxoon wax naa la ci alxuraan yàlla def na ko baadoo la woo ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ak rafetoon jikko hmm? suñu yaay ja Aysa daan na wax ne kenn musta jege yonent bi xet gu naqari xeeñ la mukk foo ko fekk mu ngay parfum foo ko fekk poos baa ngeeg peñe waaw bu yégee ne karaw kawaru sikkim bi xaw naa jaxasoo rek mu génne peñe ba jekk-jekkal toog <laughs> jekk-jekkal toog cettt waaw day soxna njaay ndeysaan dafa am doomam ju ma si ñëw ci kër ga rek tubaarkàlla wax ma ab baat rek mu ne këpp ñu ne lu xew waaw cettt baat bi ñëw mu ko wax waaw moo xadi jéego leen nekk ca ndeysaan jëm ñaajo mbokkum suñ ma mbokk ma maxtaar jéego ndeysaan rahmatullahi alayhi waaw waaw <clears throat> cey wama bihi min kamali nafs ak la ko yàlla dundale may ko ko ci matuk matuk ruux maanaam matuk nafs wa zaat matuk personnalité fa huwa ajmalu maxluqihi wa akmaluhu ala al itlaq mbindeefam yi moo ci gën a mat mbindeefi yàlla yi moo ci gën a mat ndeysaan koo xam ne nii nga mel nag mbokk yi hmm? wax dëgg yàllaam ñu yónni la ci moom yàlla mi ko prépare yooyu am na lu tax te mooy ñu bëgg ko ba noppi am ay teggin suñu digganteeg moom bu ma bëggee résumé professeur Djibi yi jot a jaar ci ay aaya jot cee jaar ci ay hadis su ma ko bëggee résumer dama la koy defal ci juróom-ñetti point professeur yaag ma dem Mbay muy noté sala ak soxna Ndey Faatu Jàllo muy noté ak Kolle <laughs> ñoom dañuy noté ci fajar gi su ma nee naa leen ko defal ci huit point ñu génne seen bindukaay tubaarkàll léegi lu ñëw ci daara ji ne ma euh, damaa fàtte quatrième bi wala nangam waaw ci la ñoom soxna Awa Njaay mu am ca la bokk <coughs> acca kon ma résumé leen li ma jot a wax ci juróom-ñetti point ndax ñaari ay bis gi ci la ñu nekkoon doon joo jóge ci gàmm gi ba jiitu ca yooyu kon teggin yi suñ digganteeg moom bari na lool waaye kon nu ñuy tegginoo suñ digganteeg moom teggin yooyu ci nun koy teg mooy un bi taatihi ci topp ko topp ko ak xeeñtu fam jaar dessin ko rëdd ko fépp fu mu dugg ci dugg-duggi àdduna luñ ca man ñu def ko yu diine yi luñ ci man ñu def ko loolooy bu njëkk bi te mooy topp ko ak xeeñtu ay jeexentalam ñaareel ba ñu bañ a jiital ci bëgg gi ñu ko bëgg dara ak lenn ji jiñ ko jox ñu war ko bañ koo jiital dara ak lenn orma jiñ ko jox ëpp orma jiñ mën a jox ko dul moom waaw màggal ko waaw teg ko fu kawe kum mën a doon rek ñu fa yonent bi teg ci sa kaw waaw jiital la ci moom sallallahu alayhi wa sallam loolu ñaareel bi ñetteel bi kum jox loxo ñu jox la loxo maanaam kum lëngool kum bëgg daal nu bëgg la kum bañ ñu bañ la ku yëg ne dangaa bañ yonent bi keroog ñu bañ la ku ko bëgg nu bëgg la lu ko daan bégloo bu ñëwee nanu bégloo lu ko daan merloo buñ ko gisee nan mer loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi kon ñeenteel ba màggal turam wi màggal turam wi ormal turam wi foo dégg ñu ne muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam te bañ ko yàkkamti ndax ñu koy yàkkamti sal salaam sal salaam déedéet buñ ko yàkkamti sallallahu alayhi wa sallam waaw ormal turam wi màggal ko waaw màggal ko moom ci boppam màggal jikkoom yi màggal ay melokaanam loolu ci teggin yi la bokk juróomeel ba gëm ko ci lépp lu mu xibaar bu mu wax rek ñu nangu ñun ñëpp ne dëgg la lépp lu mbax rek ñu ne dëgg la ci mbirum àdduna ci mbirum xaybu ci mbirum alaaxira lu mu wax rek ñu nangu ñun ñëpp ne ne ne dëgg la sallallahu alayhi wa juróom-benneel ba dekkal su naam si wala dundal su naam si ak leeral sharia bi nga xam ne moom la fi indi ak jéema a li daawaam bi maanaam njàngaleem mi ak ndénkaan yi nga xam ne moom lay joxe ñu jéem a jëfe ndénkaan yépp ci nun ak suñ njaboot juróom benn juróom-ñaareel ba suufeel sa kàddu ca ba xabroom ba suufeel sa kàddu ca jàkkaam ja ci koo xam ne kii yàlla boole na la ca ña ko ziyaare ji yàlla may la nga ma dem ba taxaw ca fa mu tëdd nga jox ko cër yooya daal di julli ci moom sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira juróom-ñetteel ba hubbu saalihiina bëgg ñu baax ñi ndax yonent bi ku bëggoon ñu baax ñi la kon nga bëgg ñu baax ñi euh, roofaloog ñoom ndax bëgg giñ bëgg yonent bi waaw roofaloog ñu baax ñi ndax ñoom bëgg giñ bëgg yonent bi ku ko bañ nga bañ ko ku kàccoor ba bañ ko ku ko foye nga bañ ko juróom ñett yëfa nga noonu mbokk yi boo delloo ca téere ba mu ne fal muslimu yajtaidu daiman fi adaiha kaamila ab jullit daa war a góorgóorlu ba kenn du ko xeeb diggante mag yonent bi du ci def lu xeebu muy joxe tomb yi ma doon résumé waaye di joxe leçon bi ma doon joxe suñu digganteeg moom wal muhaafada alayha daaim taamma sàmmonteeg moom lu ma sëkk ba bu ëllëgee ku am moyen nga am ku amutit nga am ndax matam gi moom alayhi salaatu wasalaam roy koy tax a mat mhm. texeem gi texeeg nit ñu ngi ko teg ci ni muy bëggee yonent bi ni mu koy fonke ak ni mu koy toppe waaw tabarakallah jalla jalaalu azza kamaalu li mu ko defal moom rekk la ko defal subhaanahu wa taala mi ngi nuy digal kon moo am ay teggin suñu diggante ak suñu yonent bi ñu def ko di ko topp di ñaan borom bi it subhaanahu mu def ñu ñu bokk ñuy topp yonent bi waa mu boole ñu ci min ansaarihi wa shiati ñu ko jàppale ci li muy woote loolu lu am am solo la mbokk yi xam naa bu nu yàlla maye nuy firi sunu téere bii sunu firi mii nu nekk ba ak suratul asri mboolem teggin ya fa yàlla joxoñ dëxañ ko ci baatu wa tawaasaw bil xaq bil xaq nu jéem koo indi jéem koo yaatal loolu nag kii ñu doon waxtaane dikku ñu war a xam nit mënu koo bëgg mbaa mu topp ko mbaa mu sopp ko te xamu ko wolof ne nag kenn na mu koo xamut kenn du namm koo xamut waaye boo demee ci ñi ko xam léeg-léeg nga dégg ca jënn jikkoom joo xam ne boo ko jëlee defaru fii ba àll fii ba fii ba déwén jënn jikkoom rek waaw loolu moo waral nit ñi bëgg koo xam moom nag suñu borom wàcc ma alxuraan xamal ko gaa yi xamal ko gaa yi gaa yi nag bëgg koo xam moom moom miñ xamal gaa yi moom mooy kan moo di sallallahu alayhi wa sallam ma del siwaat ca sunu góor ga xaaja abbas sàll rahmatullahi alayhi wa radi anhu tet góor googu ni mu jàngale kaar kaar nee na nanu bàyyi waaraate wi te yeete mu am bis nag muy yeete ci yonent bi mu ne yonent bi am na ñoo xam dañuy dund ba génn àdduna li ñuy xam ci moom mooy ki toog ci ker garab lam xam ca ker ga ak garab mooma tiim ci ker laa toog wasalaam nee na am na ñoo xam ne noonu lañuy def nee waaye war nañ mën a góor góorgóorlu ba xam garab gii gan la reenam yi lan la xob yi xas mi datt bi yëpp nee na war nañ ko jéem a xam jërë ngeen jëf bu ñu déglool waxtaanu vendredi samedi ak dimanche indil leen benn tomb waxtaanu fajar incha allah sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nee taxaw yor seeni kayit bëgg leen na firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi di sànni wax ci jaww ji ba waati waawoon pël mën koo dégg yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir